asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi nuyoo te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne bisu lislaam gépp la rawatina yoonu murit di la cent quatre septembre 1895 te di la le 5 septembre 2020 di bis boo xam ne. ci la sunu yaakaar ja sunu jàmbaar ja siggile lislaam siggile Sénégal siggil der bu ñuul taxaw ci kanam tubaab yi nga xam ne nanguwuñ wéetaluñ sunu borom nanguwuñ nguuruk sunu borom gi dañ koy bokkaale di ko tooñ te seen itte jëpp moo doonoon mabb diine loola nag tooñut kenn moom dafa ne woon ci diineem di jàngale di yare di jaamu yàlla fes dell ak yërmande waaye mbooloo mi màbboon jëm ci moom ci wax wet gu ak gox bu ne tax na buur yi àddina yi fiire ko ak lenn ci ay doomi soxna di ko ruuxale ak tubaab yi tey ruuxale ga day yomb ndax lañu bari nangu du ko nangu moom ci maslaha lu diineem nanguwut ak lépp loo xam ne fulla ak fayda ak jom ak mbañum rus nanguwu ko mu gànt ko fa mu ko war a gàntoo loola day tax luñ ko jiiñ ci loola day yomb gëm waaye lenn loo xam ne war naa mën a tax ñu jële ko Mbàkke Bari yóbbu ko ba jàllale ko Ndakaaru mu dem ci géej ga mënuñu koo gis ci ay jëfam wala ay waxam waaye waxi noon ci lañ sukkandiku ba àtte ko ci bis bii ndax le 10 août la génn Mbacke Bari fanaan jeewal la 11 août la àgg Ndar ñu yóbbu ko cib dal dalal ko fa mu nekk fa nag bala cinq ñu door ko àtte diggante boobu yebal nañ ay nit ci moom di ansa secret ci moom di xool ba xam luy mbiram dëgg-dëgg lañ bët ko biir ak biti gisuñ ci moom dara ba am na sax ay kilifa yuy waxaloon ni leen moom de dafa mel ne liñ doon wax ci moom gisuñu ko ci moom waaye nag dafa nanguwut ñaan te bu ñaanoon rek ñu bàyyi ko mu dellu ne bind rek expliqué mbiram wax ne daal moom day jàngale tey def nangam wóotiwut jihaad wóot wax nangam wax daal loolu bokk na si ñañ taamoon góor gi Amadou Ndiaye maa bi ak ku ñuy wax jaaxa siise ba jege sëriñ bi fi ñu dalal sëriñ bi wax ku ne ko bi te xam naa boo bindoon rek leeral leen sa mbir am nooy wax ñoom rek ñoom noonu mën nañ cee jàpp ñu bàyyi la nga delloo ndax dafa mel ne dañ lay réere woon rek waaye ñu ngi lay xam si mooy leen bindu ma woon wala ma wax lu ma indi fii kon du ma bindaat wala may wax lu ma fi jël si lu ma fi jëlee di ma delloo sama kër dal ne yéen nag tubaab yi am ci man kumpa waaye yéen bëgg naa leeral leen sama mbir ñoom dañoo jàpp ne dañ maa jàpp waaye man damay dem liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati assur won leen ko ne leen lii mooy sama seere danaa dellusiwaat fii incha allah Amadou Ndiaye ma bi daal di wëllanteeg moom góor gi jaax siise it ne ko man day ca tarixatul xaadiriya laa ne jeex naa takk. waaye nag jox naa la sama xol de te nangul naa la nangu cër bi la yàlla jox kon nag jenn doom laa am Bachirou Cissé lu tuuti la waaye jox naa la ko waxtu wu ñibbisee na nga laaj fu mu mën a ne danaa ko bind wax ko samay bokk yaa ko moom foo ne rek na ko laaj jël ko ñu daal di maslaa waxtaan joxante ay hidaaya sëñ bi ni mu bari woon tiraanga nitug diine kooku mas a seeti dina la joxe téere jox lay koloñ jox lay yu baax nan la bindoo ñu daal taggoo ci jàmm kon tubaab bi lañ bëggoon ci moom mu dellu gannaaw bind te sëñ bi jom ja ak ngor ga ak fulla ja mayu muy tàllal loxo ku dul yàlla lastu aqaafu durra xalqin baadama fawattu amriya ila rabbi sama kon fa am ñoo xam ne ña ngi continuer di ruuxale di wax ci moom lu ne ci xeeti doomi soxna yi ak ci ceddo yi ak ci ruuxalekat yi dagi buur yi biñ demee ba xam ne nag léegi amatuñ pexe ci moom faaw jël nañ ko fa ba noppi faaw ñu yóbbu ko ñu sos seeni sos daje nag ca tri fañ jàpp ne muy seenu tribunal te fa lañ ko war a àttee ñu woo ko fa bi mu egsee julliwu ci biir bureau bi fi mu njëkk a jot rek fi la kàbbar julli foofu mën nañoo tuddee ne mooy salle d'attente bi danaa ci dugg sax taxaw foofu leeral ci ne sama benn xaritu góornóor du ma tudd turam boo xam ne nekkoon na ndar moom ma leeral ne ma ci jamonoy Senghor la Senghor modifié bureau bi fi sëñ bi jullee woon mu ne nañ fexe ba mu nekk néeg bi néegu gouverneur ndax daa bëgg bu fi ñëwatee buy dal dal foofa fa lay fanaan ba foofee sëñ bi jullee woon dañ koo modifié fi ñu jàpp ne fi la jullee bokkut ak fi mu jullee foofu mooy néeg gouverneur tey baaxe na ma sax ba woon ma ko kon sëñ fa mu njëkk a jullee fa mu duggee rek moom loolu defu ko ngir naqaral leen defu ko ngir manifesté wu defu ko ngir dara ñi ko xamul ñoo koy réel waaye loolu aaday sëriñ bi la sëriñ fu ma a dugg rek te muy waxtu julli day naafila ñaar rak mbaar ci biir këram sax mbaar mu ne tëll rek li muy njëkk a def julli fa ñaar rak néeg bu mu gëj a dugg sax du duggee di julli ñaar rak ñaar rak lay ubbee ne boo seetloo barab yi mu julli ñaar rakk am na yu gën a xat biro ba ndax buñ ko dugalee ca fu metti foofee ràbb ya ne fa mu xat ba mënta siggi teew junj na ba julli ñaar rakk Baqara ak Ali Imran ca Ndakaaru boo xoolee ci géej gi it barab yu xat yëpp da ci julli ñaar rakk fu ñu ko mos a li muy njëkk a mooy julli ñaar rakk doon na lu ngeen may doy kon ñaar rakk yi noon yi la demee waaye dafa am lu ci xew bi mu ne tëll dugg ci biir rek lal der bi julli ñaar rakk ñaar rakk yi Baqara ak Ali Imran la ci jàng te mën na quarante cinq waaye yàgg yim yàgg yàgg. ak raglu gi sëñ bi raglu ak xëyba gi nekk ci moom li muy wax ne waaye suma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfika hoo kullu ahad waxtu woo ragalee yàlla dëgg dëgg ragal lu yàlla da ragal yàlla day fa mbindee fi yëpp def ci ñoom ñu ragal la ragal googu yàlla def ci moom ak wegeel googu nag moo waral ñi nga xam ne ay gar gar ñoo doon garde biro ndar bi di ay takk der te xam nga boobu tubaab bi dañuy jël ci doomi soxna yi ci ndar yi ci ëpp dañuy jàng am diine bokk fu baax ñu jël leen di leen liggéeyloo ñu ci ëpp ñu xam ñu xam diine lañ diine di diine bi sëñ bi julli dañoo mujj ñoom mënatuñ ko muñ mel na dafa am lu leen solo ñu dindi seeni bot ànd ci julli gi mel na lu ci barkeelu kàbbar ànd ak sëñ bi ba bi tubaab bi génnee daa yem ci ñoom gis ñu ànd ak sëñ bi julli loo ko loolu moo ko gën a merloo nga xam ne da doon bàgg di xult di coow ba di sëñ bi noppee mu ne li ko gën a metti mooy julli gi mu julli ci sama bureau bi boole ci julliloo sama liggéeykat yi te fii du bari bu julli te loolu taxutoon ñu andi ko fi loolu moo ko gën a gën a merloo dafa feeñ ci att bi sax bi mu nag dafa am kiimaan gu ci am Sëñ Abdul nee na diw sàngam su ku sant surang la moo ko ko nettali ne ko damaa fekkee julli damaa fekkee atte ba yàlla dafa dogal ma fekkee atte ba moo ko nettali ne ko bi mu jullee ñaar rakk yi ba ñu woo ko ci biir bureau bi mu fekk ñépp toog nee na kaala gi mu yoroon ndax sëñ bi daa baaxoo moom moom ca ca bu yàgg ba at yi gën a néew ba nag yi it kaalaam kenn mës a mu dindi ko bi mu duggee dañ ko ne fii nag liñ naan mbaxana benn la fi doon fii wuroo fesol mbaxana dindi sa kaala mu gàntu kilifa gi daal di yebal kenn. ne ko demal dindi mbaxana mi ak kaala gi kooka ba mu fa bee loxoom jëm ca moom bâtiment bi dafa ànd ak kaala gi jëm fa kaala gi jëm mel na lu joyit ñuy bëgg a daanu waa ji delloosiwaat ko jëmewaat ko geneen wet bâtiment bi joy jëm foofa ba ñëpp bi yëngu na di rëg-rëgi bay bëgg a daanu mu andiwaat ko ci digg bi bâtiment bi dellusiwaat ne dégg waa kilifa gën ne ko bàyyi ko bàyyi ko ko ki boppam bi kenn du ko laal ndeke daan ne na def attention ci bopp bi fu ngeen ko mën a yóbbu moom na xam ne du lu ñuy laal ba loolu defoon nañ ko ci rapport yi fu mu a dem lañ leen di njëkk a dénk mooy lu ngeen di wax a def bu leen ci boole laal bopp bi ndax bopp bi moom yaa quelque na lu ci ne di lu leen yéem loo xam ne bu dutoon li sëñ bi war a liggéey foofa rek mënoon nañ faa yem ndax avant avant le 5 septembre lu ne jaar nañ moom ci xeeti méttiital lu koy loo xam ne bu amutoon jom foofa lay dëppee bu amutoon baatin foofa lay yem waaye nag bi waxee ñoom ba noppi bind li muy bind ci lañ ko delloo ca dal ba di waaj nag ngir sàkk ci moom pexe continuer di def ci moom ay pexe xam ngeen la fa xew lépp gaynde gaag mettital yaag koromp yaag lu ne rek def nañ ko waaye nag mënatuñ koo delloo mbakki bari amuñ pexe neexalu leen waxu leen lu neex te gisuñ ci moom luñ mën a firndeel luy tax ñu yóbbu ko waaye ñu sos seeni sos wéyal àtte bi dal di ko fi jëlee le 19 yóbbu Ndakaaru mu am fa ñaari fan yu métti yooyu le 21 mu départ ci bato bi daal di dem liggéey liggéey bu tedd boobu kon nag ñaar rakk yango di bisub tey bii di la 5 septembre ñu war koo fàttaliku fàttaliku jëm jëm ca def ak ngor ga ak fulla ja ak fidwa te xam ne bu demutoon bu julliwutoon ñaar rakk yooyu dem ci liggéeyam bi noonu ñëpp danañ tuskare danañ yàqule ndax nasaraan yi dañ ñu not indi fi liñ bëgg ñu di ko doxee. lu bokkut ak diine ji nu yàlla tànnal diine Seydina Muhammad ji diine Sëñ Tuubaa ji kon nag Sëñ Tuubaa jërëjëf Sëñ Tuubaa jërëjëf Sëñ Tuubaa jërëjëf sunu borom mi taxoon ngay liggéey yal na noonu yàlla fayal moom mi nga xam ne moo la a fay.